rawatina musafir bu melni mom gannaaw sant yàlla ci jotaay yi nga xamne deug deug jotaay la yo xamne ni yàlla moñu ko may muy jotaay ihya mawlid nabi sallallahu alayhi wa sallam bi nga xamne mom moy fet bi gëna mag ci hadrat cheikh ibrahim bi nga xamne mo doon wax ne chahru rabi chahru ramadana wa chahru rabi shahra ijtimaina nahnu ijtimaahum fi zati illahi tabaraka wa taala ñaari weer yi muy weeru koor ak muy weeru gàmm mu ne mooy suñuy weer ñun mooy weer wi nga xam ne dañ ciy dajee te dajee bi dara waralu ko lu may jëm yàlla ji tabaraka wa taala tey jii nag ñiy dajee ci bés yi nga xam ne dëgg-dëgg dundal nañ ko ci commencement yi terute weer wi comme ni ko Mawlana Cheikh doon defee di tagg yonent bi sallallahu alayhi wa sallama di jàngale ci màggaay yonent bi sallallahu alayhi wa naka la ciy jàngee ba àgg ci màggaay yàlla tabaraka wa taala moom mi nga xam ne moo bind yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ñu ko may mu yërmaande gu màgg bés yi nga xam ne bés la yu malaaka yi di puuk li yàlla di puukaréew malaakaam ci ay jaam yu mel nii di toog jotaay yu mel ni ndax Seydina Muawiya fa nettali xadis te wax na ne moom ku néew xadis la ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa génn bés fekk leen ñi toog mu ne li ngeen toog ñi ne dañoo toog ngir sant yàlla mi ñu jubal ci lislaam ak lim ñi xéewal maanaam ci yow mu ne loolu rek a tax ngeen toog ñi ne loolu rek moo tax ñi toog mu ne gëñ leen ngir tuumaal leen waaye jibril moo ma dikkal ne yàlla mu ngi puukaréew ak malaaka yi ci am jotaay bu mel ni seen jotaay bi jotaay yi nga xam ne nag dañ koy def pour nettali juddu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam boobu ba léegi bañ commencé ci gàmm gu mag gi ak gàmm gi lépp cheikh Mouhamadul Amin jazahullah xeyran wa ayadahu wa abqaahu zuxran lil islam mu ngi dugg ak ñun ci siiratu muhammadin sallallahu alayhi wa sallam te duhun ne ku nettali siira rek mën nga koo bëggaloo nit ñi waaye ku dund sa xaal ku toog ak yow du mucc ci xaal boobu moo tax li jublu dëgg-dëgg ci gàmm mooy euh, euh, sonjaat xol yi salaat cofeel uññihaat cofeel gi nga xam ne nii moom moo nekkoon ci xol yi pour xol yi am euh, waaj ak pare pour attan lu jugee ci yàlla pour tim imaan mi nga xam ne nii moom mooy euh, suñ texeek àddina ak suñ texee àllaaxira mi nga xam ne moo gën ci bépp xéewal bu yàlla xéewal jaam bi bàyyi mu ne gannaaw xéewal am gi nga am rek sa gëm yàlla moo gën ci sa xéewal yi ndax amul benn yonantu lu may mënta nekk yonent lu may gannaaw gëm yàlla saalixu du nekk saalixu lu may gannaaw gëm yàlla wàlliyu du ko nekk gannaaw gëm yàlla ngir ñi dolleeku ci imaan gannaaw imaan ci jotaay yooyu nga xam ne dafay niroog li Seydina Muaz waxoon ñenn ci saxaaba nañ toog benn saa boo xam ne nii dañ ci gëm dëgg-dëgg jotaay yi lenn la ci jotaay yooyu jàngee ci juddu yonent bi dund yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xaali yonent bi waxi yonent bi jëfi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam pour xam naka lañ koy royee ndax moom la yàlla sant pour ñu roy ko xam naka la dundee naka la muñee naka la taxawalee lislaam naka la joxe boppam ci diine ji naka la téyee ci alquran naka la nekkee di jëmmi alquran loolu yépp guddi yi dafa nekk guddi yoo xam ne pour ñi jàng ko la man cee àgg pour àgg ci mbëggeeli yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi nga xam ne dëgg-dëgg moom la Baay wax ne moom mooy istiqaamatul xaasati xaasati xaasati yi ñi nga xam ne seen mbëggeeli yonent bi agg na yonent bi moo leen gënal lépp waxama leen gënal waxi keneen xaalama leen gënal xaali keneen jëmam jee leen gënal jëmmi keneen yoonamti moo leen gënal yooni keneen bëgg ko nag dañ ci àggee ci bëgg ummaam bi dañ ci àggee ci bëggante ñun ci suñ bopp te dëgg dëgg mandargaay mbëggeel yonent bi sallallahu alayhi wa sallama ñi ngi koy xamee ci topp ko comme ni nga xamee ne noonu la yàlla tabaraka wa taala waxee jumootim ci ay bindam ndax daf ñoo indil diine joo xam ne duur rek loo xam ne dañ koy wax mu rafet te kenn mënu koo roy waaye moom ñëw na dund ko saxaaba yi dund ko topp ci gannaaw gi salafu saalih ñëw fi dund ko ba lu baax rek ci topp loolu ci la baaxee kon ba léegi ñun tim mën nañoo topp ci yoon boobu cheikh ibrahima radiallahu anhu wax na ci waxam ne li nga xam ne moo gën a tax lislaam tasaaroo tasaaroo bu yaatu ak bu gaaw bi mu tasaaroo li ko waral mooy yonentu bi sallallahu alayhi wa sallam moom mi doon oote oote bi dafa nekkoon koo xam ne xolam lu laab la sellalam ñeexal yàlla sellal gu wér la looloo tax mu ne war na ci képp kuy oote ci lislaam te mu ne ñun ñëpp ootekat lañ ci lislaam ñu sellal xol yi am ixlaas ci oote bu ñuy oote jëm ci yàlla boobaa dana yomb ñi ñuy oo pour ñu topp ñu ak summeeku ci mbooleem jikko yu ñàññi gi gannaaw loolu mu ngi dénkaane ragal yàlla ci lu feeñ ak ci lu nëbbu loolu nga xam ne Cheikh Ibrahima mas ta dénkaane lu may dénkaane na ko mu ngi dénkaane tim euh, wëttu mbokk gi mu ngi dénkaane dundale ci yàlla mu ngi dénkaane yi yëpp ay dénkaane yàlla la dimbalante ci lu baax euh, ak ragal yàlla bañ a dimbalante ci moy yàlla bàkkaat gannaaw loolu tim mu ngi sant mbooleem xadra bi rawatina kilifa yi nga xam ne bu ñu leen santee yóbbaale nañ ñi ci biir waaye ñëpp la sant rawatina ñi nga xam ne ñoo enu aba daawa bi ci njiit ci ñooñu ñëpp mooy allaama cheikh Mouhamed El Mahi Ibrahim Niass ak sënuhu al aarif billahi mawlaana cheikh Mouhamed El Amin Ibrahim Niass ak al imam al akbar cheikh Ahmed Tidiane Ali Cissé ak mbooleem ñi nga ñi ngi nekk ci liggéeyi xadara bi dimbalanteeg ñoom ci lépp loo xam ne nii moo tax gàmmu gi mën a jaar comme niñ ko buggee ci teral gan ñi ci ganale gan ñi ci jàngale ci jubale ci wax li nga xam ne moom lañ war a wax ak mbooleem euh, ñi nga xam ne taxaw nañ ci muhaadaraat yi waaye ci kaw loolu mu ngi gërëm jamiyatu ansaar diin mi nga xam ne lijaan yooyu yëpp ñi ngi nekk ak moom ci njiital cheikh Mouhamadul Munhamina waaye di gërëm tim doomam Cheikh Ibrahim Mamoun mi nga xam ne moo jiite komaaf ak mboolem lijaan yi nga xam ne mu ngi aju ci loolu euh, euh, duñ gudd euh, li ci ëppu Cheikh Mouhamed naa ci boppam tudd na leen gërëm leen seedaloo ko sëriñ bi pour mu ñaanal leen ci kaw loolu tim ñi ngi gërëm mboolem autorité yi ak mboolem ñi nga xam ne ilaam bi ñi nga xam ne ñëw nañ seeni télévision seeni rajo pour tasaare gàmmu gi ñoo ñëpp ñu ngi leen di gërëm ak ñi nga xam ne dimbale nañ nit ñi ci sécurité bi loolu yëpp ñu ngi leen ci gërëm waaye sëriñ bi tim mu ngi gërëm président ndax am na taxawaay bu am ci moom bi nga xamee ne mu ngi tukki waaye démb rek tim jokkoo na ak moom loolu yëpp pour feddali taxawaayam ci ci loolu ci moom loolu tim euh, ñu ngi koy gërëm ci loolu di ko ñaanal yàlla mu defal ko tawfiq ñaan yàlla tim mu may ko mu mën a dëggal yaakaar yi nga xam ne pays Cheikh Ibrahim moom lañ am ci moom te Sénégal yëpp amoon ko ci moom euh, ñi ngi euh, dellu di ñaanal sëriñ bi moom tim yàlla delloo si ko ci jàmm muaafan saxiixan saaliman nga xawiyan